li may njëkk wax rek ci question bi mu njëkkee moom laay njëkkee mooy donc menace bi pesé ci seen collègue. Euh, Aliou Sané pour mu delluwaat. Pape Sané euh, Pape pour mu delluwaat kaso. sama damaa jum wax Aliou Sané. parce que mm-hmm. effectivement c' est le même cas. le même cas exactement le même cas. Mm-hmm. que Aliou Sané. Mm-hmm. ak Pape Sané. parce que dès lors et ça il faut le comme benn faille bu nekk ci sunu. système en fait sunu euh, système judiciaire ci sunu code de procédure pénale. mooy dès lors que le procureur bi def réquisitoire mu viser un des articles entre cinquante et ñu tëj la day obligatoire le juge à les mains liées loolu dafa nekk euh, lu doy waar ci sunu code de procédure pénale qui donne énormément de de pouvoir au procureur de la République et participe Tawfekh bokkoon na ci ci proposition yi nga xam ni ñun def nañ ko ci suñu programme bi ñuy proposé Sénégalais yi en 2024 incha allah donc ñu modifier euh, notre euh, le fonctionnement de notre justice pour wàññi pouvoir procureur de la République parce que dans ce pays les procureurs de la République ont trop de pouvoir mm-hmm. tey moo tax may woo toute la presse dès à présent ñu mobiliser wu fortement mm-hmm. parce que Pape Sané li ñu ko bëgg a tëjee délit de presse la un post Facebook bu deux mille vingt et bu mu defoon sur sa page mu rafraîchir ko et ou il parlait de choses banales. de de de de l'ancien général. l'ancien chef euh, commandant la gendarmerie. Tine qui n'a pas reçu les honneurs comme il fallait loolu la ci waxoon. du dara y rien qui attente à la sécurité de la République. ba ñu war ko. Euh, euh, man a delloo kaso sous ce chef d'inculpation jaay doole la parce que tey ñu sommes dans une situation où le pouvoir dafa bëgg a noppiloo toute voix discordante te moom dafa bokk ci les voix discordantes te loolu moo jar tey seen pix tous les journalistes taxaw pour que ñu def barrière ko duñ ko delloo kaso sinon li dal Aliou Sané moo koy dal dañ ko yóbbu dañ ko yóbbu kaso mm. mu nekk euh, mbir boo xam bëggoon naa ci euh, attiré suñu attention nit ñi ne ñun euh, fépp Tawfekh dañoo proposé ci sunu programme ni tey bu ñu sénégalais yi defoon président de la république mhm. dañuy instituer li ñuy wax le juge des libertés maanaam balaa ngaa dem kaso yow da ngay am droit boo jàppee ni li ñuy bëgg yóbboo kaso du dëgg mhm. nga saisir li ñuy wax le juge des libertés moom déjà mu mën a xool sa dossier xool ndax la nga yóbbee kaso kooku yellu na yanu na maanaa wala yanul maanaa bu yanul maanaa ñu libéré la ba kere ñu lay euh, mën a juger parce que encore une fois la liberté et le principe et l'emprisonnement doit être une exception absolue mmh surtout nag mmh koo xam ni il garantit de toutes il bénéficie de toutes les garanties de représentation. Mhm. par Sané ku ko xam xam na fu mu dëkk. Mhm. xam nañ fi muy liggéey xam nañu du daw buñ buñ ko waree woo kon amul aucune raison buy tax ñu war ko yóbbu en prison et c'est la même chose que Aliou Sané et c'est la tous les détenus au titre de ces détenus là ça me permet euh, motif bi ñu ko tëjee mooy motif bi ñu tëjee tey Diomaye Faye un citoyen dangaa am droit gis lu la na gis lu la naqari si sa fonctionnement des institutions nga ngañ ko c'est la liberté mhm. minimale de d'un citoyen mhm. autrement nekkatuñu dans une démocratie nous sommes dans une république de terreur mhm. Diomaye Faye lu mu def mooy gis ni sunu système judiciaire ni muy fonctionner baaxul mu bind sur sa page Facebook ni système bi ni muy fonctionner baaxul ñu viser article entre cinquante et cent deux l'emprisonnement est obligatoire loolu lañ ko yóbboo kaso moo koy massawu ci injustice boobu nga xam ni président Macky Sall teg na ko ko mais pire ñu teg ko dans un régime d'isolement juridique. président Macky Sall nga wax de moo ko teg. tey tey ci tey man je suis quelqu'un qui assume li may wax lépp procureur de la République. dafa nekk su l'autorité hiérarchique du ministre qui est l'autorité hiérarchique du président de la République donc qui donne des ordres <coughs> directement au procureur loolu également bokk na ci faille du système judiciaire yi nga xam ne fépp taw féex donc daf ko bëgg rectifier tey ci sunu programme de développement économique et sociale bi ñuy proposé sénégalais donc je disais tout à l'heure en plus de mettre euh, des prisonniers politiques dans les geôles du pouvoir fi ñu dañ dañoo nekk en régime d'isolement muy kudul seen famille dañuy tere ñu def leen ay visite loolu également lu ñu bëgg dénoncer la vivement pour ñaan président Macky mu teggi loxoom ci prisonniers politiques yi nga xam ni daf leen a mettre en système d'isolement carcérale loo xam ne c'est interdit par la loi c'est interdit par les conventions internationale te képp kuy xaritu Sonko képp kuy mbokk Diomaye Faye am nga droit dem ci euh, dem ci tribunal ñu jox la autorisation de visite mmh. nga dem visiter leen wante waruñu leen mettre en régime d'isolement dañ koy dénoncer très très vigoureusement